بسم الله الرحمن الرحيم mbokk jullit yéen ñi ñu bokkal l'islam ci Sénégal ak bitim réew seen mbokk imam Khadim Ndiaye di sëriñ daara ci ndakaaru li jiitu ci ay yëngoom di alxuraanul karim jiite complexe islamique daaru tanzil pour l'éducation et le développement di daara ju ñu sos ci atum 1995 ci ndakaaru te ak léegi ñu nekk ci luyaas ci wàllu résultat ay ndongo yu bari génnee fa ay ingénieur ay médecin ay jàngale jàngalekat ak yeneen xeetu spécialité moo leen di yëgal ne sunu boroom mi dara tëwul dogal na am terrain 3000 mètres carrés ca Touba Niser fa tabax ab complexe islamique bu juróom-benn bâtiment di daara alxuraan jàngukaayu arabe français anglais ak informatique bloc administratif dëkkuwaayu ndongo ya ak dëkkuwaayu sëriñ daara ba muy projet bii ñu leen présenté ci ndigal ak ci turu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu ciy woo mboolem jullit ci biir réew mi ak bitim réew képp ku ci bëgg a barkeelu te yàlla rekk tax mën nga jaar ci compte banque islamique wala banque Cofina ci écran mu ne ak weew yi ngeen gis ci écran bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu wa min al ahzaabi man yunkiru ba'dahu